ah <laughs> que la police m'a raflé. yow mii la police rafle. ah mu wax dëgg. c'est dédi quoi c'est ce que je peux dire. mënu bàyyi yëngal aras mu la wax en tout cas dafa mer. mais Boubacar ka mu lay wàññi ma foog ne am liggéey beeg ñàkk ko nga yemale. <laughs> mais c' je je tiens toujours c' est toujours valable hein. si veille me renvoie moi il m'en parce que c' un bon patron tu me vois ici hein. toi tu naa ne sax yow <laughs> la laaxu Dakar ak entraînement bi xam nga da ngaa sonn mu ci biir. laaxu lan. Dakar. laaxu Dakar. waxuma Dakar de Dakar laa wax. ah Dakar. waaw j'espère que c'est pas les manger façon façon la. gis nga loolu dafa baax si na boo sonnee. dafa baax si yaram laaj ko sama maam Abdoulaye Wade xam na lan mooy laaxu Dakar. Ah. <laughs>